ànd ak suñuy kilifa di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo rek professeur Koumé dégg nañu li nga wax li nga joxal ñu ko le directeur de la prévention le docteur du Ndiaye mu joxal ñu ko la directrice Marie Khemesse Ngom Ndiaye la santé mu joxal ñu ko nag suñu ministre de la santé et de l'action sociale moom si ti paree joxal ñu ko nag suñu président de la république ndax liggéey na lu bare ci mbas mi di wax nag macha allah tubarkalla wax nañu lépp waaye man dama koy tënk ci olof ndax communication li nga nàmpali da ci am solo moom laay faral di wax bàjjen yi leen comme 557 communes yëpp foo dem bàjjen nga fa damay bëgg ku nekk li nga nàmp nga koy wax ak ña nàmp bu ko defee dégg-dégg bi day yomb te ci loolu la ñu nekk ndax ñun li ñu tax a jóg mooy informer gannaaw bu nu ñëwee ci kilifa yi yore santé di ci liggéey prestataires yi. bu ñu formé informé ñu ñu wàcc ci suuf waxtaan ak nit ñi moo tax ISC rek mooy suñu rôle dañuy informer dañuy communiquer dañuy éduquer ni ñi pour ñu am un changement de comportement te lu yëngu lu nekk lu ko yëngale ko ëpp doole mbas bi ah doy na liggéey de ñu ngi ñaan nag yàlla jële ko fi bu baax a baax te ñi mu lorit yàlla leen yàlla xare àjjana di wax daal mbir mi yëpp mooy ñun suñu taxawaay dañuy changer suñu communication ndax ku nekk xam na ne mbiru mbas mi dafa bari ay rumeur ñuy wax te xamuñu ca dara moo tax suñu liggéey xaw a metti ñuy wax ak nit ñi di leen xamal ne ba fi ñu toll nii mesure barrière yi ñu waxoon de leen raxas seeni loxo ndox ak saabu ba mu set boo amee gel nga utiliser ko saa yoo duggee ak saa yoo génnee di takk mask di respecté taxawaay bi benn mètre ba benn mètre genn wàll te bàyyi xew yi bàyyi takk yi bàyyi ngénte yi bàyyi dëj ba tey ñu bàyyiwuñu ko waaye nag dafa am lu ñëw yokk si muy ñàkk bi ñàkk bi dañ ciy posé ay question waaye ñun ci li ñu wax rek ca la ñuy yam ndax duñu ay docteur dañu naan leen ñàkk bi daa seet ko ci sa doom boo jur bu fekkee dafa respecté programme élargi de vaccination bu muy def BCG ba ba muy def RR feebar bu ñëwee ci moom da koy tisati moo tax ñàkk prévention la te mënuñu wax kenn tamit na boo ñàkkoo doo ko am waaye du yegg ci forme grave bi ñun suñu communication foofu la toll ñu ci yokk nag ndax sunu formation santé de la mère et de l' enfant la directrice wax na ko léegi mais ku wax santé mère enfant wax famille te famille mag a ngi ci yi docteur yi professeur Koumé représenté xale ngi ci góor a ngi ci jigéen a ngi ci genre la daal moo tax ñun jigéeni wéru li fi ñu toll nii ci la ñu gën a teg suñu bët moo tax ay vadi la ñuy def boo déggee vadi mooy visite à domicile intégré soo duggee ci kër gis ku tëdd boppam di mette fekk yow protégé wu nga danga ko naan xaaral ma woo ICP bi woo ko na ko am na kat ku yaramam tàng fii kooku dina def la ca war bu dee jigéenu wëri li tamit fi ñu toll nii dañu lay orienté ci poste de santé bi gën a jegeñ sage femme ba fa nekk boo ñëwee dina xam ban ñàkk nga war a def waaye ñu ngi ñaan ñu ñàkku ndax boo xasee ne jigéeni wérul wér amatu fa kon war ngaa aar sa bopp aar li nga ëmbale bañ koo lor xale yu góor yi am 18 ak xale yu jigéen it dañuy def sensibilisation ne ñëpp ñàkku ji li professeur Koumé wax léegi nag mag du yàlla waaye dafa yàgg ak yàlla il faut ñuy protéger suñuy doom suñuy rak suñuy darbaat boo ca nag suñu ay yaay ak suñuy maam ndax mag moom feebaru mag da ngeen koy dégg feebaru mag moom bu ñëwee day metti kon mag ñi ñoom bu njëkk ñoo gën a ñàkku waaye ñun dinañ ci jouer rôle boo xamante ne wax ak nit ñi ñu bàyyi mag yëpp ñu dem ñàkku ji bàyyi xale yu jigéen yi ñu ñàkku ji jigéen yu wéril ñu bàyyi leen ñu ñàkk ji ci biir loolu ñuy respecté ba tey mesure barrière yi di takk mask di raxas loxo ba mu set soo amee gel utiliser ko respecté distanciation physique bi mètre ba ci mètre a génn wàll bàyyi xew yi te xam ne feebar baa ngi fi te du caaxaan te la yëngal bitim réew du bàyyi Sénégal tant que ñi ngi am cas communautaire xel du dal mais ñi ngi ñaan rek yàlla mi ko fi indi yàlla na ko teggi di gërëm nag tout le personnel médical et paramédical ak presse beeg yëpp ndax ñëpp a ci dugal seen loxo yàlla yàlla fay leen ñu ngi leen di gërëm di leen sant. voilà Ibrahima